bon salaamaaleykum mbokk yi salaamaaleykum yéen ñi safoo étoile TV di ko bëggee saa yi su ne di ko topp waaye tamit fépp fu woo ngeen wuyu si ko étoile TV la chaîne leader la chaîne du peuple tey nag gis ngeen dama dalal sama waa ji Paco borom borom GP TV Paco doomu ndey galaay waaye Paco borom Tivaouane xam naa rek boo leen ko gisee mu nekk biir étoile TV di ngeen laaj lu a xew waaye leen dong la muy le 14 événement bi nga xam ni l' événement tant attendu dans tout le temps du territoire muy koy waaj sante

ayca asalaamaaleykum euh, Gassama maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la sant te it di la gërëm bu baax a baax di nuyu waa Thiaw ñëpp ah di nuyu képp koo xamante ni rek yaay safoo étoile TV Sénégal man Paco maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu ñi nga xamante ni ñooy bëggee Paco ak Galaay bu baax a baax di nuyu waa GP TV Sénégal maanaam di nuyu daal képp koo xamante ni yaa ngi dëkk Thiaw yaa ngi dëkk Sénégal. képp koo xamante ni yaa ngi nekk fi nga xamante ni mooy àdduna Paco moo lay fekk fi nga toog di la wax asalaamaaleykum euh, di la bëggee bu baax. waaw mu nekk nag édition spéciale boo xam dañ kaa dajale spécial le 14 fii ci étoile TV ak waa GP TV ku wax étoile wax GP waaye tamit wax GP wax étoile ana Galaay. waaw Galaay Galaay mu ngi fi. Galaay damaa xam ne koo gis pako gis Galaay ci wetam. Mm-hmm. tey ana ana Galaay fu mu dem. waaw ku ne xam na ni galaay moom boo waxee wax moom mm-hmm. galaay si ginnaaw lay ne Paco rek dañuy jiital muy wax xam nga Paco moom moo xaw a sob mm-hmm. moo tax chaque jour gars yi di gis Paco sa diggante galaay Paco ñu koy laaj bari na ba xam galaay seex lañ ñoom seex lañ wala lan la seen affinité bi am seen diggante lan la macha allah sama diggante ak galaay moom waaw maanaam ñu koy laaj bari na comme ni ko mm-hmm. waxee galaay maanaam yàlla moo ñu boole man ak moom mu doon sama nit doon sama waay mën naa ne man àdduna benn xarit laa fi am eh, muy muy galaay jaw te Galaye man ak moom suñu diggante maanaam su ma doon la wax suñu xamante lu yomb lañ xamante man ak moom. ñu dem a dem a dem ba bokk maanaam bokk ndey bokk baay. ma nekk ak moom moom mu ñàkk papa. man man mu jël sama papa papa ko. man tamit ma ñàkk yaay jë yaayam ma yaayoo ko. mu doon diggante boo xamante ni maanaam tuutiwaayu ñëpp nag. ñu ngi koy wax. Mm. waaye daal eh, ku ñu mën a ñaanal rek diggante bi ànd bi gën a yàgg. gën a jëm si kanam nag gàllaay moom maanaam sama ànd ak moom man rëccuwuma mm. moom moom tamit lu muy lu mu doon àndee ak Paco. Mm. ndaxte maanaam ànd bi daal am na solo. am na solo gis ngeen ndeysaan mu nekk am boo xam ne ku nekk mi ngi ko doon laaj ànd gàllaay ak Paco a xam nag yàgg leen a xam ci wàllum aar waaye tamit yàgg leen a xam ne mooy média. njëkkoon na gis ñu créé Galaye et ses amis waaye na bu ci gis ñu créé GPTV mm. comment est-ce conceptualisation GPTV Sénégal mu lëmbee Tivaouane nag de. te grand yëpp tegee leen nele ngeen gérer nu mu demee noonu GPTV Sénégal. waaw comme ni nga ko waxee rek Galaye ak ses amis la ñu waxoon Galaye ak i xaritam. ñu doon jé ay théâtre et esquisse ku dem wuti bi ni nga ko fa fekk. Mm-hmm. ñu dema dem ba si biir gis ni Tivaouane. maanaam am na ay site internet yu fi nekk ko si mel ni El Hadj Mbengue Diop mu géré Maam Ndox TV PMC Pa Moussa géré ko ñu fay jaar di dem nuyu ñoom suñu mag yooyu nga xamante ni tey fu ñu mën a àgg yàlla ñoom ñoo tax ndaxte si ñoom lañ doon xool ak si mel ni Étoile TV Sénégal fii lañ ko fi fekk moom muy def lu liggéey bu am am solo bi mu toogee daal man ak Galaay ñu waxtaan si ñu ni pourquoi pas ñu ibbi site internet di def comme ni nga xamante ni ñoom la suñu mag yi def ndax jàpp nañ ni ñoom li ñuy def mën nañ ko loolu daal moo tax tax ñu toog bu ñu toog sax xalaatuñu woon GPTV Sénégal mm. am na beneen tour sit bu ñu xalaatoon ñu ko def dem si suñu waay joo xamante ni kay na Tivaouane moom moom mooy pammool yoobu pammool loobu Tivaouane mm. muy muy eh, Matar Mbaye Matar Mbaye doon koo xam borom mm-hmm. xamante ni ku baax la wallaahi wallaahi <laughs> si moom lañ dem mm. toog bi ñu demee am na ay tour yu bari yoo xamante ni jox nañ ko ko sax moom Matar waaye bu ñu ko joxee rek moom sax moo ñuy wax naan da ngeen dugg wuti xool ba xam boobu bari na wala bariwul mm. maanaam bi ñu nag ba tombee si GPTV Sénégal bi GP bi nag xaw ma sax kan moo ko kan moo wax ak GP ma am na daal ku wax GP rek si ñun ñett ñi nga xam ne ñoo ko toogoon man ak moom ak euh, Galaye Diaw si lañ ibbee site bi muy GP TV Sénégal maanaam bañ koy ibbi nag dañoo waxoon GP comme comme GP. Mm-hmm. GP comme GP waaw waaw mm-hmm. information comme GP nag. Mm-hmm. dem a dem a dem ko yàlla def mu ñu ñu jàllale ko mu jàll logo yu commencé jàll. maanaam ñu si liggéey liggéey bu ama am solo. ki nga xamante ni mooy Tivaouane ba ñëpp xam ne ñu ñoo ngi liggéey bi demee ba si biir nag nit ñu commencé noo jaxasee. peuple bi naan GP. Galaye Poko la ah. loolu. <laughs> waaw mi GP Galaye Poko ñu ko na nag de. bokk naa si ñi nga ñu Gala GP Galaye Poko gis ngeen parcours bi yombul nekk ay jeunes waaye tamit nekk ñi nga xam ni dañuy participer ci le développement d'un pays. parce que waa ji waxoon na le développement d'une localité dépend de la situation sa jeunesse parce que ñoom tamit ñi ngi góorgóorlu mais tamit ñi ngi jox les informations fiables à information fu mu baaxee da ngay wax ba xam GP na ko wax naa leen ko waaye nag ñu ñëw nag ci daj jëf gi. muy seen seen événement. defoon ngeen ko suma ma juumul bi mooy troisième édition bi. Mhm. waaw événement bi comme ni nga ko waxee bi mooy troisième édition ñu def événement bi. Mhm. mais bi mooy deuxième édition muy nekk anniversaire GPTV Sénégal. Mhm. na première année bi boobu gala SSM la woon ñu organiser woon benn fête rek duñ ko def c'est le 14 mai bi. mais première deuxième année bi mu tombé nag anniversaire GPTV Sénégal première année bi nga xamante ni ah. moom la ñu ëgg wax un an. peut nag la nekk deuxième année bi nag la nekk cëppaandaw li nekk li nga xam xamante di ñëpp di waaj mais li ma jaaxal mooy tisi desatul Tiwaawan tey dañoo fees pour ma tabax see jot sax koo wax mun la GP école yi coursiwaar yi ñëpp GP la ñu wax daal la 14 loolu moom loolu lan lan lan lan lan la loolu moom dëgg la am loolu jox gars yi wala da ngeen yëngal butéel yi loolu noonu yëngaluñ benn butéel maanaam GP moo nekk ñoo xamante ni ñi fa nekk ñëpp ñun dañoo dañoo maanaam dañoo bay suñu waa fi nga xamante ni mooy Tiwaawan mhm. fexe ba sekk ñëpp jàmm fexe ba am ak ñëpp jàmm fexe am ak ñëpp connaissance moo tax bis bi bi ñu ko jàppee la 14 wallaahi tey rek nit woo na ma ni ma pako sax ngeen di dugal affiche wala ngeen publicité mm. ndax ñëpp xam nañ bis bi mm. koo romb si mbedd mi école yi taalibe yi ñëpp sax la 14 la ñuy waxtaanee mm, nag liggéey bu am solo bi ñu liggéey nag moom moo tax mu loolu am ndeysaan mi ngi noonu la 14 mai kon ñoo ko déggoo ñun ñëpp taalibe yeeg am daale ñëpp a ngi koy am religieux yeeg mbalaxmaan yeeg théâtre kat ñëpp a ngi koy xaar waaye dafa nekk loo xam dafa am solo parce que da ngeen ni hommage à Ablaye Ba mm-hmm. kan mooy Ablaye Ba waaw Euh, laay Ba moom suñu wax si moom maanaam dañuy dañuy dañuy dañuy maanaam Ablaye Ba kenn mënta wax si moom moo doonoon nit koo xamante ni bi mu ñëw GP am na fu mu ko fekkoon waaye tamit am na fu mu yóbbu GP TV Sénégal ndaxte laay lépp loo xamante ni lu baax la mu gis ko si mbedd mii rek laay dafa daan jël indi ko si ñun laay am na am na suñu programme bi ñu mujjee mooy su suñu première année mm-hmm. laay wallaahi dañoo toog man ak galaay ni si jour bi ñu xaw a jaaxle xaw a maanaam ni ko booy di waxee xaw a xaw a catle quoi. mu xaw a dëgër suñu xel demul si fenn wallaahi ñu woo laay. Mm. acte boobu dafa doon acte boo xam ne duñ ko mës a fàtte. Mm. laay dafa dem si place am euh, maanaam dafa dem si benn waay. ni man mën naa laa liggéey benn affaire quoi waxtaan ak moom ba pare ni ko mais danga may fay léegi bu subaa ma commencé liggéey bi loolu mu ko fay nag moom la jël ñu jox ñu ko pour jàppale ñu rek pour programme bi mën a réussir si jàmm ak leneen ak leneen yoo xamante nii laay def na ko mm. moo tax euh, demul laay bi maanaam doon na loo xamante nii xëy na yàlla moo ko fi indi woon te yàlla moom bu bu soxlaa ñëpp a ñàkk mm. waaye doon na loo xamante ni ñun bert nañu lool lool lool ndax doonoon na xale bu am jom xale bu bëgg GP TV Sénégal waaye koo xamante ni nag waa Tivaouane ñëpp ko bëgg mm. te moom tamit dafa amoon connaissance fi nga xamante ni mooy Tivaouane. tey bu ñu waxee dañ koy rendre hommage doon na loo xamante ni daal lu lu lu am solo la. si ñun. mi ngi noonu ndeysaan mi ngi noonu li olof di li alxuraan di wax la kullu nafsin zaaratul mawti bakkan bu ñam dund waaye tamit dina ñam dina ñam dee. ñu koy xanaa ñu koy ñaanal rek foo mu fi fi fi mu dem gënal ko fi mu jugee moom tamit man bi ma ko xamee yàggul je dis la vérité mun naa ni seen événement ni daja xaw ma ak benn reportage mais mi ngi mel ni xamante ne fi mu romb damay nuyu te je pense que ni galaay moom moo ko présenté woon mu nekk euh, ko koo xam ne man bi bi ma annoncé gaañoom sax damaa métti su ma juuma ñu ngi woon Touba ñu nekk en milieu de travail mhm. foofu nan ngeen ko dundee ba xam seen liggéey dafa yàqu wala ngeen mujjee arrêté ñibbi wallahi boobu mu ngi fekk Touba ndaxte ñun ñun ñoo waroon ànd dem màggal Touba. Mm-hmm. yàlla dogal euh, moom mu am ay liggéey mu wax ñu ko jiitu leen bu ma dem jour bi nga xamante ni euh, mu ngi départ Thiawane ngi ñëw Touba. Mm-hmm. si guddi gi presque heure bi non euh, ay vingt trois heures jàpp minuit la ñu woo woo si téléphone gàllaay la woote mun ko booy maa ngi nii di ñëw maa ngi nii te sama saak xawma daal di ñëw yooyu noonu man tey ngaa jaar péage bi moo gën a gaaw bu ma péage bi gars yi dañuy jàpp bàyyi ma jaar yoonu suuf bi mm-hmm. man ko waa ok kon baax na am na ma am na ma demee daal ñoo ngi lay wéet si lan dem ba gàlle ma wax sama waa gàlle nii lañ dama am gan buy ñëw nañ ko tibbal ree mu mu pour bu mm-hmm. ko mm-hmm. man ko sa waay kan dem sa waay daa àgg dafa àgg ba pare am feneen ko son mënuñu ko jot tëddee daal ba nelaw ba côté six heures jàpp sëriñ suñ benn jigéen Mayram Sall moo ko fay jaaree tamit di ko nuyu bu baax a baax moo ñu woo daal eh, di jox ñu xibaar bi daal di wax ni laay lan moo ko dal maanaam ni mu waxee laay lan moo ko dal rek doon na si galaay la ko wax mais galaay maanaam mu xaw a jaxasoo si moom. Mm-hmm. sëriñ ma galaay yeewee samay nelaw man tamit ñu xool après woote jël information ñu xam ne laay def na soog. bi mu defee tamit ñàkk na bakkanam ñun ñëpp kenn mënatul tee tee sa bopp. Mm. parce que dafa dafa dafa metti nit dug di la fekk di yow yow toog di ko xaar maanaam ñu jox la nouvelle boo xamante ni maanaam neexul neexul si xol mu doon loo xamante ni ba léegi euh, ba def ñuy jàpp ak Serigne Touba. ñu naan ba léegi daf ñuy jàpp man sax man j'ai des frissons mais yaa àdduna la àdduna la mais tey jii bu ñu waxee le 14 lan lañ mën a xaar. ci hommage la laay len leen yan lañ fa mëna surprise parce que ñi gis affiche mi ngi daw ñi gis ku nekk ci estati dugg gis le 14 wala nga gis ñu bind GP TV lan lan la GP TV di réserver waa Tivaouane. wa inshallah le 14 fête la euh, fêtu GP TV Sénégal mooy fété deux ans officiel yi nga xamanteni mo liggéey liggéey bu am solo. Mm. waaye le 14 mëna nañoo xaar lu am am solo. si wàllu omage maanaam hommage bi ñu def moo si gën a am solo hommage bi nag ñu si ànd ak gasama <laughs> gas doon koo xamante ni yow ma wallaahi jawee naa la ko foo nekkul te ak ñeneen leen tamit am na ñoo xam ne jawee naa ko foo xam ne nekkoo fa mm-hmm. muy Tivaouane yaa ngi bu ama ama lu ama am solo yaa ngi ko fiy def mm-hmm. ñu ànd seeg yow nag ñu bëgg a teg hommage boo xamante ni maanaam bu ñu ko defee ku nekkoon si salle bi di suivre gën xam ni ñii am na fu ñu jaar ak laay ba mm-hmm. te am na it ay témoignages yoo xamante ni ginañ ko indi mm-hmm. te ku ne gën a xam tamit dëgg-dëgg kan mooy laay ba mm-hmm. te it bëgg nañoo wane kóllëre gi nga xamante ni sekk nañ ko ak moom ilaa yow mi diini kóllëre googu du dagg ñun ak laay ba mën nañoo xaar tamit euh, li nga xamante ni mooy yeneen programme boo xamante ni waaw waaw invité yooyu waa kay yëpp yëpp mën nañ koo xaar tamit si biir waaw boobu ñoo ngi si invité artiste Thiane yëpp yëpp yëpp yëpp képp bu nekk artiste nekk Tian ñoo lay invité si bis boobu noonu nga xamante ni GPTV Sénégal moo ko moo ko moo moo wootee en même temps nag dina am li nga xamante ni mooy Mazaret mm-hmm. xam nga ni boo nekkee jigéen boo nekkee boo nekkee ak ay jigéen maanaam da ngeen topp si si li nga xamante ni mooy seen bëgg-bëgg ngeen def ko moo waaw moo tax it ñu indi leen masaret indi leen lépp bis boobu nag ñu ngi koy tuddee ki nga xamante ni mooy Mamadou Diagne Sy Mbengue mm. nag gis nga ni daaw moom moom la moo ko nekkoon ren tamit moo ko nekkoon mais le pourquoi la Sowa Diagne Sy Mbengue le pourquoi ñu <laughs> nekk Tivaouane Peulh mais chaque jour GPTV am na ñu leen jëwee sax Diagne Sy Mbengue moo nekk si ginnaaw GPTV <laughs> ndaxte boo leen dugal information doo leen ko mos a balaam yéen lu positif ci JPS la ngeen di wax. ak seen ak seen problème ak paa ah, <laughs> non xam mun maa toog bi te duma la ko laaj. <laughs> loolu moom xam naa ni moom Cheikh ah. ko laaj noo quoi ah. mais yàlla mais yàlla baax na yàlla baax na bon ñun nag euh, li tax ñu choisir. Diagne Diagne Sy Mbengue mooy Diagne Sy Mbengue ñun dañoo yàgg ak moom. dëgg la te en même temps maanaam daf noo yëg. Mm. daf ñoo yëg ba pare daf ñoo bëgg moom Diagne Sy Mbengue. Mm. te it euh, am na fu ñu jaar fu bari. parce que yàgg nañ koo topp fu bare bari foo xamante ni xëy na xamante wuñu woon bi yàlla dogalee suñu xamante bi nag moom mu gis ñu ñu nekk ay xale mu xam ne ñun ñoo ngi liggéey nekk si yoon moom tamit mu bëgg ñoo jàppale moo tax bu ñu amee lu tolloog euh, suñu événement bi mu tolloog GPTV Sénégal mu doon événement bu mag a mag a mag a a kon faaw faaw ñu jël ko sargal si ki nga xamante ni mooy Mamadou Diagne si Mbengue ngi ngi bëgg gi nga xamante ni bëgg nañ ko ngi jàpp gi nga xamante ni jàpp nañ ko tey boo gisee tam Mamadou Diagne si Mbengue moom am na lu bare bare loo xamante ni tey jii nii def na ko suñu dinaa jox leen xaalis de un million <laughs> un million yan ah gas léegi da ngeen a bëgg waaye tubaab bëgg luñ tiitale ba xam nga bu nga waa dëkk bi ñëpp luy beew waaye du ngeen ko ah. maanaam nag comme ni ñu sekkee jàmm ak Diagne si Mbengue nag mm. dañu ko sekkee ak Demba Diop si mm. Demba Diop suñu paa la. Mm-hmm. suñu waay la suñu lépp la moom moom Demba Diop si. Mm-hmm. non selon ñu ko sax billaay suñu paa la di fa jaar di nuyu Pape Toora di mm-hmm. nuyu waa ñoom Bekaay. di nuyu ñees maire bi ñëpp ñoo lay nuyu bu baax a baax a baax a baax Abdoulaye Ndiaye Ngalbo tamit. noonu lañ koy bëggee di ko safoo bu baax a baax. moom tamit suñu waay la ñun yàlla moo ñu may ay xale maanaam ñu ay xale lañ de mais ñoom ñëpp la ñuy dégganteel. te ñoom ñëpp tamit am nañu ko koo xamante ni ku sooy la lool lool lool si ñoom ak nga xamante ni mooy Abdou Neena Sall tamit moom suñu paa la suñu waay la te ku ñuy bëggee la. Mm. waaye dafa jaay di nuyu euh, Lamine. Lamine Thiandoum Lamine Thiandoum moom sama soppe la. Mm-hmm. moom chaque jour dañuy déggante ba ak Serigne Touba ko doon ku baax a baax a baax doon koo xamante ni sama waay la ak nga xamante ni mooy maam Ding Sougou Mm. dëkk xaali moom tamit kuy jàpp si mbir mi la bu baax a baax GP moo lay béggee di la nuyu di la ziar. mi noonu mbokk yi ñoo ko déggandoo événement baa ngi noonu mu nekk événement bu risque boo xam ni Tivaouane ñëpp a ngi koy xaar mu nekk dimanche le 14 mai à l'épice de Tivaouane nee naa leen dina am aar Khadim Diop ak Khoumda Boss dina ñëw woy curi daan ci méng dina ñëw presté sax day presté jour bi si hommage bi Galaye Diop dina presté Cheikh Thiam dina presté Tivaouane gépp bépp artiste bu nekk Tivaouane ñu ngi répété lu am solo lu am solo loo xam ñu ngi koy préparé waaye du ma dem te laaj ma la question ak sa mot de muy ngeen jël événement bi ngeen nekk site internet mais ngeen tegee seen i caméra nële jël seen i doomi ndey muy étoile TV ngeen ko événement bi jox nañ la ko loolu lan la waaw maanaam nag euh, waa Tivaouane sax dañ koy wax parce que étoile GP maanaam ñun ñoo tolloo niveau quoi ñun maanaam ay boy ñoo ko yow mm-hmm. boo xoolee ñu gën a ne xale fii étoile ngay wax wala GP te ñun tamit ñoo fi def liggéey boo xamante nii liggéey bu ama am solo la ba suñ mag ñi sax nangul nañu liggéey bi nga xamante ni ñun ñoo ngi koy def mm. kon nag liggéey boobu ñuy def ba tax étoile GP TV Sénégal maanaam ñun ñaar chaque jour ñooy ànd mm. ay ñoo bokk ay doomu nday ñoo bokk ay mbuus ñooy kafante ñooy mbalagante dafa jaar nuyu Cheikh Thiam mi nga xamante ni maanaam information bu gaaw moom moom moo koy joxe. tak tak ñaay rapide moom information tak tak mu jox gars yi baak Serigne mm-hmm. moom lu ama am solo lay def mm-hmm. billaahi moom Thiam te moo tax it ñu jël bis bi euh, ànd seeg Étoile TV Sénégal ndax Étoile TV ak GP moom euh, ay waay la mm-hmm. waaye teewul tamit ñoo ngi si woo képp koo xamante ni yaa ngi yow site internet nekk fi nga xamante ni mooy Tivaouane ñu ngi woo ñëpp ñëpp ñëpp si bis boobu noonu di xam ne bisu GPTV Sénégal bu lee ba xew mu jeex te gisuñu yeneen sit internet yi kon dinañu laaj tamit waaw ñoom fu ñu nekk ndax ñu dañoo sekkut ak ñoom jàmm wala te fekk ñu ñëpp lañ sekk ak jàmm ñëpp lañ am ak jàmm waaw am ko aca mi ngi noonu comme euh, mi ngi noonu comme ni ñu ko déggoo ñu ñëpp ñu ñëpp ñu ngi ko déggee kon Étoile TV Sénégal mooy ki nga xam ne mooy coiffé Euh, programme bi waaye tamit di woo bépp artiste bépp site internet bu nekk Tivaouane naa leen la 14 buntu épice ba si buntu salle bi lépp dañ koy lal tapis rouge def plateau bu mag a mag a xam naa ne gën ngeen a gis plateau étoile def plateau bu mag a mag a mag képp ku fay jaar yeneen laaj ay témoins si GFE laaj si diggante ak GFE mu nekk loo xam dina rëy rëy ngeen xaar plateau bi incha allah dina nekk plateau bu riche et varié nee naa ko Paco waa Tivaouane ñoo leen bëgg yàggalaay dama lay bàyyi nga tàggoo joxe sa mot de la fin waaye tamit ku nga xam ne da nga am looy jaay am loo bëgg war nga bëgg kaa wane nee naa la après di nga joxe service commercial bi pour GPTV. service commercial étoile mooy service commercial bu GPTV <laughs> Sénégal. waaw mën nga joxe yaal numéro bi rek. étoile dugal CP dugal na ko. <laughs> noonu kon aja ñan ngay tàggu ak ñan ngay. waaw sama sama kàddu gu mujj damay woo waa Allo Sénégal. Hmm. ngeen baal ma ne publicité bi dégg ngeen. non <laughs> problème yow lii si événement la ñu. waaw waa Allo Sénégal waa Max TV waa TV. TV waa Dakar Buzz tamit eh, ñu ngi déggante bu baax a baax te ñoom ñëpp bëgg naa ñëw si bis boobu noonu ngi gën a tax bis bi gën a yànji gën a tax tamit bis bi gën a gën a gën a gën a am solo si nit nii ah sama mot de la fin tamit may nuyuwaale ñi nga may bëggee ki nga xamante ni mooy Galaye Diaw comme ni nga ko waxee sànq. moom ah, muy lépp GP TV Sénégal ak ki nga xamante ni mooy Alpha Bambis di bëggee Fëri Ndiaye moom Afia mi nga xamante ni moom lu lu nekk lay def ba ak Serigne Touba Mbacke Fëri Ndiaye chaque jour di ànd ak ñun du nuyu ñoom Ahmed loobe du nuyu ñoom Jibi Kayta Babacar Fadiela Abib Mbaw Xaadim Diop sa Boos ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñoo leen di nuyu bu baax a baax ak 900. quatre vingt neuf cent. neuf cent cinquante cinq gañ. neuf cent cinquante cinq gañ tay dañoo xew. <laughs> sama sama sama gars yi ak Mariam Sall maa koy nuyu tamit bu baax a baax a baax dafa jaanoo di nuyu suñu benn maire boo xamante ni wallaahi lu GP bëgg rek moom mooy sax. mu nekk yaayu Ismaël yaayu Ameth Diallo ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di ko jox wàccuwaayam di ko wax ni GPTV Sénégal kontaan na si yow bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di nuyu rek ki nga xamante ni mooy Ndongo mbub bi nga xamante ni macha allah mooy waaw mooy Baye Fallou étoile mm. ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Thiam di nuyu Matar mbay moom mooy yor seenu xalifa bi moom rek lay topp ak Sëriñ Tuuba xalifa moom nga xamante ni nag mooy mooy suñu comédien Assane Mbeng Assane Mbeng nag bés boobu noonu war naa mën a def lu lu neex. non kuus bi waaw kuus bi war naa mën a. woo ko ci woo ko ko kuus bi. waaw Assane Mbeng foo nekk si Tivaouane waaye maa ngi lay woo bu baax a baax nga ñëw indil ma kuus bi ndax bés boobu noonu surprise yu bees tàkk war naa am fi nga xamante ni mooy épice bu Tivaouane mbokk yi daal euh, maam fekk am na koo xamante ni fàtte naa ko maa ngi jégalu bu baax a baax xam ni xel moom amatul Galaye Diaw yaa ngi may wax loo rek waaye xam nga ni émission bi gudd na. waaw te. <laughs> non mais noonu te lii moom Étoile TV kese lañ ko mën a amee. nit amul lu dul sa nit. Mm-hmm. nga woo nit mu yëg la tey fi nga leen mën a gërëmee. Mm-hmm. ndaxte lu nekk defal nañ ko GFI waaye tamit. Mm-hmm. mu amul leen dara lu dul gërëm leen rek. Ah, waaw gërëm ñëpp rek comme comme comme ni ñu ko waxee sànq rek ñu ngi gërëm képp koo xamante ni artiste nga wala jàpp nga si bis bi ak ñi nga xamante ni seet nañ leen bu baax a baax ku si Euh, Lamina Thiandoum mm-hmm. nuyu naa sànq ku si mel ni euh, Bekay Diagne mm-hmm. waa ADB ñoo leen nuyu bu baax a baax ku si mel EMDG euh, e e bu ëmma ëmma si panel la bokk ñi nga xam ne noonu tuddee mm-hmm. bés bi ëmma doon na nit koo xamante ni nit ku baax la ak yaayu Jilso yaay Joso moom tamit doon ku baax a baax a baax moom si marraine la bokk ak nga xamante ni mooy umu si. Mm-hmm. ñooñu ñoo lay béggee tamit di la ziar ak Max ah. moom moom tamit <laughs> si marraine la moom si marraine la bokk xam naa bu yàggee ngeen di bari na. na dëgg la bëgg lu baax. ku bëgg lu baax demal si Lamp Fall Couture. ajo mi ngi noonu ku bëgg lu baax ku bañ a sol lu mbaq wala nga sol lu cëkk demal ci Lamp Fall TV mbokk yi ko déggee l'événement temps attendu c'est le 14 mai à l'épice de Tivaouane ñu bañ kaa fàtte 19 heures ku ñëwul saal ba dina fees